ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci suñu dars bi di wax ci buntu bu am solo boo xam ne buntu bu ñu soxla la soxla woo la muy silsila boo xam ne ñu ngi koy def ci alxayaatu zawjiya assaida silsilatu alxayaati zawjiya assaida buntu bu am solo bii nga xam ne dafay tënku ci naka lañ mën a def ba tabax ak kër wala dund aw dundin woo xam ne ci biir néegu sëy lay doon waaye dafay mucc ayib dafay baax dafay tege ci ni ko sunu borom bëggee waaye ak ni ñu ko bëggee aji gëm yàlla ji day gis boppam ci boobu sëy parce que day yëg ni am na ci fierté am ci bànneex waaye am na ci ngërëmal sunu boroom am na ci it bëgg-bëgg yi mu doon yóotu ba tax muy tàbbi ci sëy sëy dëgg la ak jaamu yàlla waaye jaamu yàlla gu ànd ak bànneex nit kaa ngi cay mën a bànneexoo su fekkee fexe na ba defee ko ni ko lislaam bëggee ginnaaw bu takk amee walima am ginnaaw bu ñu leeralee yooyu kon tey
ñu war koo def nag ci léegi nag sëy yi ak céetal su ma nee sëy yi mooy léegi yëkkati ndaw si nag war koo jébbal borom këram su ma nee céetal maa ngi ci namm séetu nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala weer wu màgg wi nga xam ne moom la ñu génn muy shahru ramadan al mubarak sunu borom mi nga xam ni barik sunuy bàkkaar moom du ko wàññi dara néewuk sunu tiyaaba it du ko wàññi dara te it yërmandeem moo jiitu am meram te it moom ku baax la ku mën a baale la ndax innahu afuwun yuhibbul afwa suñu borom ku mën a baale la tey daa bëgg di baale noo nga koy ñaan mu boole ñu baal noo nga koy ñaan mu boole ñu ñi nga xam ne dañuy texe ci weeru koor teyit borom bi nangul nu suñuy jaamu yàlla yiñ ci jot a def rawatina laylatul qadr ji nga xam ne moo ci gën a yaakaar lu ñu ngi ñaan suñu borom bu defal ñu tawfiq ak taysiir ak saada fi dunya wal axira kon nu war a tàmbaliwaat tey suñu tuur yooyu su ko defee ñu ngi taxawoon ci bind bale weesu ndénkaan yi nga xam ni dañ koy waajalee ab séet ndax loolu moo nekkoon bind bi mujj maa ngi rappelé waat encore une fois képp koo xam ni fekkee woon na dara su booba na ko dégluwaat bu baax loolu moom ndénkaan la boo xam ni maa ngi koy sàkku te am naa jubluwaay ci sàkku ga ku yàlla defoon nga fekkee dars ba na nga ko nafaraat ku sun borom def fekkee woo ko woon fexeel nga déglu la ko waral mooy am njàngalee nga ca moo xam ne gëm naa ni day ku naroon na daanu sax boo ko jëfee yàlla mën na laa dimbale nga joyantiwaat ki nga xam ne gis na ni mi ngi bëgg a soobu ci néegu sëy te amul ab yóbbal ah du ma wax loola doy na de waaye dinaa wax ni ndimbal lay doon ba mu yëg boppam ci ni ndimbal am na kon nañ ko dégluwaat nafaraat ko bu baax amaana yàlla subhanahu wa taala an yanfaana bi léegi mu def nag ndaw si maye nañ ko léegi nag dañ ko war a waajal mu dem kër borom këram loolu ngeen di tuddee sëy léegi nag aada waxoon naa leen ci bind bi weesu ni aada léeg-léeg day duggalante ak jaamu yàlla nit ñi nag dañ leen di jaawaatle waaye aada am na ci yu bari yoo xam ne islam nangu na loolu ci bàyyi leen ci xel islam ñëwul rek pour lu nit wax rek mu dàq déedéet waaye am na yoo xam ne ay aada la islam bu ñëwee da koy nangu bokk na ci aada yooyu islam nangu mooy ñi ngeen gis ngeen koy def yéen waa Sénégal fii te réew yi bari di ko def bu sëy jotee ñu waajal ndaw si taaj ko géewal ko ci digg ëtt bi di ko defal ay ndénkaan defe naa loolu ci suñu bind bële mujj leeraloon naa ko bàjjen bi wax ndijaay ji wax rakki baay ji wax rakki yaay wax ah léeg-léeg sax ndeysaan nga gis ku dénkaane bay jooy na nga xam ne yëf yi nag moom fi ne ñor na xomb nag mais la nga gis ku wax a wax a wax a wax ba jooy te loolu foofu dafa dëppoo sunna parce que loolu noonu la ko sunna di defee nag kon foofu gis ngeen aada la waaye aada dëppoo na fa sunna ñaareel mooy bu nit dee sëy sunu aada ñu dañuy faral di wax na ko bàjjen bi yóbbu defe naa noonu foofu tamit dëppoo na ak sunna dëgg la duñu wax bàjjen kese mën a yóbbu waaye daal nañ seet mag mu ñor nag moo xam ni moo koy yóbbu wér ci liwaale xëy na yëcc aara dugal te bokk ci nag mooy kaay leen ko muuru bu fekkee muuru woon wax dëgg yàlla googa muuraay daanaka yàqu kër la rek waaye amut njariñ moo tax am na ci kenn ku am fayda biñ ko waxee kaay muuru dañu ba ma muuroo du fay muuru woon naa bu yàgg waaye wax na dëgg laa sax donte nag foofu dinaa dénk mbokk yi jërut coow nag maanaam man li ma ci xam ci wàllu aada mbir ma ak bokkaale yàlla amu ca wala lu garaaw loo xam ne jar na xeex wala yàqoo xëy na seen tëri rabal yooyu xaw ma rabali aawa lañ koy tuddee xaw ma rabali ñaareel seen tëri yooyu ñuy faral di jël di leen ko muur damay wax ne jarul jarul coow maanaam bu fekkee ñoom dañoo nar a indi coow jël ko loolu du dara bokkaale yàlla amu ca dara amu ca ah ci li ma xam man ndax kaw ga laa yaroo xam naa la lu bari ci wàllu aada dara néew ci jëlal muuru rek xëy na am na yeneen yuñ cay boole lu mel ni kaay natt ci dugub jéeg kaay wër ngi gis géeg kaay wër guy géeg kaay xas ci garab géeg kaay jàpp ci buntu kër géeg ah yooyu moom ay xeeti yëf yëfaan la yoo xam daanaka xumbal rek la ko la ci nit ñi dugal ak aada waaye amul cosaan ci lislaam su ko defee ñu daal di waajal seet bi pour mu war a dem ci borom këram waajal ga nag bokk na ci mooy nañ defar ndaw si ba mu jekk nag kooku moom islaam maye na ndaw si defaru defaru gi nag bàyyil xel la lislaam doon tere ba tey mi ngi koy tere meesu dafa xaraam xeesal dafa xaraam wat ay yéen dafa xaraam daggi ay bëñ pour am sàkkar yàlla dafa xaraam xeet yëf ya araamoon yëpp yëgal ni amul benn bu ci dagan ci booy sëy déedéet la araamoon day continuer xaraam ba tey waaye nag may nañ la nga lépp lépp yu rafet nga puudaru bu fekkente ni doo ko wane fa góori jàmbur ya nekk nga puddanu bu fekkee taar taar ba ëppul ba pare nga di ko wane may nañ la nga parpow su fekkee ci sa biir néeg borom kër nga nekk maanaam yooyu ñu bàyyi ci xel kon bépp xeetu taar taar islam maye na ko bu fekkee dagan na dem ca quoi ñuy quoi feeg yooyu nag jëru ko parce que jàpp naa ni benn bu dee góor moo koy def foofu moom daganul bu dee jigéen ñi moo koy def léeg-léeg mu defal la loo xam ni seetlu naa ni jigéen ñi am na ci ñoo xam ne jaral na leen bañ a julli parce que am na xeeti xama yooyu ngeen def seen bopp yi xama nu mu tudd nu mu tuddati gel léegi loolu bu ngeen ko defee bu jàpp jotee masaa nu ngeen def ah ma ni am na loo xam ne dafa mel ni daakaande waaw bu leen ree noonu laa ko xamee léegi loolu bu bu julli jotee nu ngeen def non am na ñoo xam ne dañ masaa ci kaw parce que boo nee mii boo nee mii mu tax waaw mbokk mi wax na lu am solo tey bu fekkee nit ki dafa jàpp ba pare mu jël kol teg ko ci kawam ah bu jàpp jotaatee bëggee jàpp mën naa masaa ci kaw kol islam may na ko loolu waaw loolu de solution bu baax la moom waaye nag jàpp na ni loolu yaa koy def ak ñeneen waaye ñu ci def dañuy burle na ci ñu bari ñoo xam ne moom jaral na leen bañ a masaa loolu dafa xaram wala xëy na xeeti poudre yi ñu def ci seen kanam ak yooyu bañ mu tas wala mu yàq wala defaraat bi la ci teg loolu moom musiba du ko gën a rëy sëy boo xamante ni yaa ngi ko tàmbalee mooy yàlla moom jàpp ba di nga ci am ndam jàpp may di nga ci am doom ju baax Aïcha radiallahu anha Asma bint Yazid ibni Sakan nee na man maa doon waajal Aïcha ba muy sëyi xam ngeen Aïcha yent bi ko takk ci atum juróom benn bi nga am juróom benni at bi mu amee juróom ñeenti at ñu daal di ko koy jox mu sëyi li lay wan ni gone la Aysa leen woon bi may sëy sax ci njoowaan nga lañ ma fekk may fox man daal damaa jékki-jékki rek ñu ñëw jël ma ni ma acca kaay da ngay sëy te xam nga kooku mu xamul bii sëy moom moo tax yu mel noonu yu mat a bàyyi xel la ndax jàngal gone yi ba ñu xam sëy aka am solo ndax bu dul loolu rek njaaxu mën naa am nee na ma jël ko defar ko loolu la wax mu ne ma defar ko jekki-jekkal ko nag ba mu jekk te loolu lu am solo la parce que jàpp naa ne ki war a dajeeg borom këram ñu melal ko melokaan woo xam ne dana jekk ba neex a xool yokk cofeel gi borom këram amoon ci moom ndax daje bu njëkk boobu gaa du dee su ko gaaw a fàtte de daje bu am solo ci dund ak nit kee ñëw waxoon naa leen ci dar si weesu léeg-léeg parfum bi soxna si parfum mbaa sëñ bi parfum bis boobu sax mu ngeen seyoon vingt ans doo ko fàtte foo romb ci benn fu mu la xeeñee rek mu yóbbu la fu sori nag lu ko waral parce que bis boobu dafa foor ci ku góor dafa foor ci ku jigéen nee na bi mu yegsee ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu daal di koy indil këllëb meew yonent bi jël meew mi naan jox Aïcha Aïcha daal di sëgg maanaam wane ni suur na doy na Asma bint Yazid ibn Sakan nee na ma ne ko eh jëlal waaye nga naan nga naan suur na nee na mu jël naan ndax daa rus te it noonu la baaxee jigéen gi du gis moom baaxut nee na mu jël naan ba pare yonent bi ni ko joxal sa àndandoo yi nee na mu ànd ak mu jox leen ñu naan bi ñu paree mu delloowaat ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom sax balaa ñoo naan ñu nekk fanaan doy naag baax naag yonent bi ni xee bu leen boole xiif ak fen jël leen ngeen naan laa wax léegi xam nga loolu moom kersa moo koy waral kon bokk na ci sunna ku góor ki mu waajal soow wala meew bu mënee am pour waajal ko soxna nga xam ne bu ñu indee séet bi bokk na ci yi ngay def mooy jox ko meew mu naan nga naan bi yonent bi naanee ba nag Aïcha dafa dàkk fa yonent bi tegoon gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam mu teg sa gémmiñam moom it loolu tamit bokk na ci sunna yu bare bari ci wàllu aada nag nañ koy moytu foofu ay balaa ngaay dem da ngay jënd dàllu taraxak kaay natt ñaari loxoy dugub ak kaay yenu leget gi teg ko fee tamaam ba muy sëy si noonu la defoo nag kaay wër ngigis geeg kaay wër new geeg kaay wër guy geeg kaay xas gar yooyu ay xeet yi ci fànn yoo xam daanaka foo dem ak seeni aada góor ñi it kadaalika léeg-léeg léeg-léeg nga dem ci sëy yi nga fekk ndeysaan aada dafa sonal nit ñi lool da ngay dégg léeg-léeg ñu naan ku jigéen ki bu mu la jiitu bu mu la jiitu ci néeg bu la jiitoo ci néeg bi rek du baax ci yow su ko defee nga gis bu seet bi ñëw ku góor ki faxar faxar yi moom it daal di dugg loola jàpp naa ci njuumte yi la bokk léeg-léeg nga dégg ñu ni góor gi bul bul bul bul sol tubay solal borom lii lépp ñu ngi am ci sëy yi fi mu nekk nii xam nga gis ni góor gi moom daanaka ab bolok ab daaru xamis lay sol rek gis nga ak yeneen yu ñàkk fayda yoo xamante ni wax dëgg yàlla yooyu dafa doye di trop ci wàllu aada la loolu moom bu ñu la ko def loo bañam yu bari bari nag day jur ay coow ñi nga xam ne dañuy jéem a dund sunna tey jëli ay séet moom xam nañ ci dara léeg-léeg ñu sonal la ci lool léeg-léeg sax ñu seet ci loola nag xam naa loolu gëw ma ni am na Dakar am na sama benn xarit oustaz boo xam ne ñoo bokk dëkk bi muy takk soxna dañ ñu ko boo fecc seet bi duñ la ko jox loolu mooy seen aada ci ñoom waa dëkk bi àpp nañ ko ba fajar jot ba fajar jot nee na benn xaritam moo moo mujj ñëw ni ko baal ma feccal la xam nga loolu wax dëgg yàlla dafa doy waar lool sax lool te lii kéemaan gi mooy fi mu nekk nii maanaam fii ngay nekk Dakar nga ni ah loolu de bu doon mën a du ma ko def waaye gis nga ñoom aada la ñoom joo xam ne fi ne boo ko defut seen doon neuf heures dix heures onze heures minuit une heure deux heures ba ba xaaji guddi ba fajar di waaj a jot boo feccee duñ la jox duñ la jox moom daal moom moom faw nga feccee ñu jox la te xam nga feccee moom daanaka dafa xaraam kon ci gàttal yooyu yëpp wax dëgg yàlla léeg-léeg dinañ dem ba def loola loo xam ne daanaka bëggu ko woon def sax te fekk musiba lay indi xëy na yi ci gën a garaaw nag mooy yoo xam bokkaale yàlla la mën a jur ku góor ki bu seet bi ñëwee war na koo dalal waxtaan ak moom seet nag ñu bari dañu yaakaar ni guddi rek lañ ci taam de guddi da caa gën rek waaye nag seetu ba ca sax dara newu ci huit heures ci suba ba huit heures ci guddi ba xaaji guddi heure bu ci seet ñëw dara newu ci bis bu mu ñëw it baax na weer wii ñu nekk nag weeru seet la muy sawaal Aïcha nee na yonent bi saa sallam ci sawaal la ma takk ci sawaal la ma ceetal te daana saamu takk soxna ci sawaal moo taxit am naa cër ci moom lool kon weer wi weer wu baax la donte nag li ñuy weer wi nang kenn di ci takk sëy weer wi nangam weer wi nangam bis bi nangam yooyu ay aada yi kese la waaye sëy moom suñ ko bëgg a takkee takke ko fa nañ ko bëgg a takkee takke ko noonu bu deekee dëppoon ak lislaam bokk na ci njàngale yi xam ngeen ni seet rawatina gone rawatina jànq rawatina ku mës a xam góor buñ ko yóbboo ci sëy day am problème moo tax ndénkaan yi am solo da ngay gis dañuy jël kuñ naan mooy topp mi loolu am na solo topp baax na lool parce que topp mi boo demee yu bare bari yoo xamante ni seet daa war na génn di ko defal boppam topp maa koy defal kon loola moom wax dëgg yàlla islam bañ bàjjen bi ànd ak moom suma classe bi gars yi nga xam ne dañoo xaw a kii lool xàmmeewuñ yu bari da ngay dégg naa seet bi kenn du ko topp de kenn rek koy topp déedéet loolu du sunna de loolu bi daa la seet faw am ñu ko topp seet faw am ñu ko topp ndax loola mooy sunna te loolu la yonent bi jégale yemul ci sax ba ba di leen wayal ngeen leen baa mbaa wayal ngeen leen ay su di ko déedéet mu ne ko da ngeen a waroon a way ndax ñoom dañoo bëgg ay way waxoon naa ne nag wayal nu muy demee ak lan see wax loolu jëluma ci jaara seet bi bu yegtee ba dugg si ci néegu ku góor ki jaadu na ku góor ki dalal moom na nuyoo moom salaamaaleykum wa rahmatullah ñun nag daanaka loolu dañ koy faral di fàtte salaamaaleykum wa rahmatullah mooy jàmmi yàlla ak yërmandeem yàlla na yàlla wàcce ko ci yow jàpp na ne ki ngay doog a dugg si nga wax ko loolu mu delloo la ko ah loola baax na de bu fekkee seet bee njëkk a dugg ci nee bi da ngay gis ko góor ci faaxar faaxar yi ñëw moom it te du nuyoo loolu musiba la yonent bi alayhi salaam dafa digal ni saa boo duggee ci sa waa kër na nga nuyoo te bii mooy dugg bu njëkk kon da ngaa war a nuyoo ñaareel bi mooy léeg-léeg seet bu yegsee dafay wéet soxla ku ko wéttali foofu nag ku góor ki nag moom faaw nga nekk faaw nga xaw a bari wax nag tuuti foofu moom maanaam foofu moom ku góor ki faaw mu xaw faa bari wax nag xaw a bari wax li ma ci namm mooy bu ñëwee rus la nga rus ko mu noppi nga noppi kañ ngeen di waxtaan kon nag foofu ku góor ki moo aye bi dee ngeen li ma wax ku góor ki moo aye maanaam bis boobu moom ku góor kee aye moom moom ay bi yaa war a waxtaan yaa war a xumbal yaa war a tooñ ah fi yëg mi ngi dagan rek ndax xam ngeen ni ñaari way denc li araam ci leen diggante bariwul kon su boobaa fexe créer benn ambiance baax na fa lool da ngeen def da ngeen yendoo mbaa tey de xam naa ne moom sonn nga lool tey de moom jege ko laal ko dalal ko dalal xelam ah ah wax ay wax moom kay boo bëggul woon a wax it nag bu yow nga wax nag moom gis nga seet yu bare bari li ko tax a naqari loolu la mooy da ngay ñëw di jéem a jaay ay sell sell loolu yooyu jàpp ni affaire bi moom mooy sëgg ci suuf xool fee déedéet da ngay niti nitilu gis nga dafa am yoo xam ne dafa nite islam bañu ko boo yaakaaree ni sellaay mooy tax yenn yi doo ko wax wala yenn yi doo ko def yëgal ni salafu saalih daan gis nga ibni sirin borom xam-xam bu mag la benn waaye da koo laaj ni ko waaw seeti ambiance yooyu ñuy xumbal moom di ko wax ci soxna yi moom loolu moom moom yaakaaroo ni ak ñàkk fayda la mu ni ko mu ndax wax lu kontaan loo sa soxna su fekkee bàkkaar amu ca mu ndax yéen da ngeen caa gis leneen déedéet dara ñëw te fuddan bi nii lett yi nii moom daal loo xalaat ci lu baax loo mën a wax rek waxal moom daal faw nga bari wax tuuti moom foofu moom may nañ la nga bari wax tuuti waaw laaj ko nu mu yendoo mbaa gan yi sonalu leen leen xam nga ndaw si moom yaay ubbi ambiance waaye boo ko dégg li ëpp ci jigéen ñi ah xanaa jigéen ci dang maaral lool moom mën naa ñëw rek daal di felli waxtaan bi waaye bu dee jigéen ju bari kersa pour mu siggi xool la sa problème lay doon loola nag l'islam bañut jege ko toog ci peggam naan sow jox ko laal ay lettam xool lett ya nu mel ndax loolu la bëgg gat moom yaa taxoon muy lett su nekk ni bu ko wóoroon ni bu lettoo bu ñëwee dina lett ba lett yi ràpp doo ko xool bu jaral muy lett kon kay bu ñëwee xoolal lett yi saa saa sax bu fekkee am nga tuuti nga yëkkati cinq mille ah lii de ma def naa ko ci lett yi loolu daara néew ci damay wax ni yëpp dagan kan moo la fuddan kii de moom war naa koo gis ba fay ko waaw moom daal waxal rek moom daal lépp loo xam boo ko waxee moom xelam gën a dellu si nga def ku ngeen yendool tey ah ana sa àndandoo yi ana moom daal waxal rek waxal rek loo yaakaar ni boo ko waxee bàkkaar bu ci am daal bu soobee yàlla waxal rek loolu day waral soxna si daal di ubbeeku mën a toon waaye nag léeg-léeg nga gis xaw ma kersa lay doon xaw ma ñàkk xam da ngay gis ku góor ki ni sam sam maaral ku jigéen ki ni sam sam maaral ndeysaan kenn du wax xam nga loolu moom daanaka neexul te li may wax lu am la nag lu am la de xanaa léegi la jigéen ñi suppeeku rek ndax léegi moom macha allah la quwwata illa billah jigéen ñi dañoo dang ngaaral lool sax lool lool waaye bu doon bu njëkk rawatina ca kaw ga sax teg nga xam ne ay jigéen la ñuy doon yoo xam ni ah boo ko jege woon nga tàpp ko rek fii ba ngoon mën na ko fee jooy ndax yarewuñ ko loolu yooyu daana am léegi la commencé xew yi kon waxtaan da cay baax gis nga yu mel nii nag ñàkk waxtaan dafa yàq lu baree baree bari rawatina sax ñàkk xam looy wax gis nga formation yii dafa baax nit ki am ko balaa seet bi ñëw benn waaye day nett li te xista bi waaqia la lu am la koo xam ne xam naa kenn yarewu ko loolu xamut yii moom li mu xam rek mooy teel toog fee amul góor amul dara ku góor ci kasaalika ndeke moom xamut ci tey dara dara te loolu erreur bu rëy a rëy a rëy rëy rëy mën na ko ndaw si dugg si sëy si ku góor ki dugg ci néeg bi nit ñi génn bàyyi leen fa ñoom ñaar ñu toog ci lal bi kenn waxu ku ne di xool morom ma xam nga loolu daanaka jëmul kër moom biir bu yàgg yàgg yàgg yàgg ku góor ki waxut ku jigéen ki waxut dafa ngeen lii baax na léegi loolu fi ne kañ la kañ la seet bii ne bàjjen bi romb ci buntu néeg bi déggul kenn wax mu ne ah man daa mel sama ñii waxtaanin ji mu taxaw déglu déglu déggul ku wax mu muridi bi ni waaw yéen da ngeen dul waxtaan xam nga mbir mi bu demee ba yegg foofu wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg a ëpp nag te ku góor ci xamut lu mu war a wax ku jigéen ci xamut lu mu war a wax gis nga lii nag moo lay wane li ma njëkk a waxtaan fexeel créer benn ambiance boo ko def rek yàqu-yàqu am kenn ci ñoom xamut lu mu war a wax te bàjjen nee na waxtaan leen ku jigéen ki wax wax waa ji loo xam ni daanaka ma ne si jàpp si sëy moom xam ngeen lu mu ko wax ah ku jigéen ki mu ne ku góor ki ndax ca bàyyi xaraf xam ngeen loolu xamu leen loolu xamu leen baat boobu lu muy teg ndax sa bàyyi xaraf na kenn xamut loolu mooy lan ci yéen ah mooy lan dégg nga jooju wax ñes te wax sa adduna ndax sa baay jong na bàjjen bi dégg ko ni laa ilaha illa yow kenn moo la wax nga wax lii ku góor ki lam tontu nag moom du ma ko wax sax ndax lam tontu gën a bon ku góor ki ni noppi rek billaay moo ko tontoo rek daal di jaar fu bon xoolal loolu maanaam lii du ay léegi lu am la lu am la waa ji ko nekk li seen dëkk la loolu am na xoolal yooyu wax ndax tawaay xaraf na dafa ne loolu ay wax lan moo tax mu wax ko parce que dafa am information xamut lu mu war a wax ak lu mu war a wax kon yu mel noonu faw ku góor ki bàyyi ci xel ku jigéen ki bàyyi ci xel beneen bi ci topp ginnaaw waxtaan weeg yooyu mu dalalee ko jël loxoom teg ko ci boppam bu ko góor ki jëlee loxoom teg ko ci bopp ku ndaw si te ndaw si it mën na ko def insha allah laa ba'sa mu ni allahumma inni as'aluka min xayriha wa xayri ma jabaltaha alayhi وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي loolu ñaan la bu am solo boo xam ni ku góor ki mën na koo ñaan ku jigéen ki mën na koo ñaan te mat naa mokkal nga yëkkati sa loxo teg ko ci kanamu ndaw si maanaam ci tolloog jëbi rek ci kawar gi nekk nga ñaan ñaan boobu moom it mu def kon laal nga ko laal na la beneen bi ci topp mooy bu ñu mënee ànd ñu julli ñaari rakka ku góor ki jiite ko allahuma lu dul ndaw si dafa am ngànt foofu nag man dafa am lu ma jaaxal mooy jigéen ñi bari bu ñu leen di mayee day fekk ñu gis ngànt dañuy tiit xanaa loolu ab laaj la mooy laaj maam lii wax yàlla li may wax ni lu am la man la dama xamut lu ko waral d'accord ngeen ni am na maam man dama seetlu ni fukki jigéen yoo dajale yuñ waajal pour sëy xaw ma day tombe xaw ma du tombe waaye daal li ci ëpp dañuy gis rek traité wu mooy lan ñu xaw a tiit mbir mi jaaxaloon na ma lool parce que dama ne dama doon wax ni lii mënta tombe man dama doon wax ni lii moom dëgg dëgg dëgg mën sa tombé ndax seet na ñaar raaka yi foo ko jàngalee lépp da ngay fekk jigéen ko du mën a julli te loolu moom xanaa mënuñu seet ko andi ci àddina bi day fekk du mën a julli su mën ta julli ku góor ki rek na ko def ku jigéen ki bàyyi ba set doog koy def wala ñoom ñaar ñu bàyyi ba ku jigéen ki set ñu bokk ko def loolu toxal nañ ko jëlee ko ci magi salaf yi benn bi toxal nañ jëlee ci Abu Hurayz muy damaa takkoon ab péet muy gone may xalaat ni ah yàlla bu seytaan yi dox sama digganteeg moom ma laaj Abdullah ibn Mas'ud waaw lu may def nag ñaan ko yàlla mu ne ko da ngay julli ñaari rakka te nga xam ni miineel ci yàlla lay bàyyi koo mbañeel ak contre ci seytaane lay bàyyi koo su sa waa kër ñëwee da nga koy jiite ñaari rakka nga wax allahumma barik lii fi ahli wa barik lahum fiya allahumma ajmac baynana ma jamacta bi xayrin wa farriq baynana ida farraqta bi xayr loolu mooy yow yàlla yàlla nag ma barkeelal sama soxna fi barkeelal ko ci man te it nga boole ñu ci yiw ci jamono bu ñuy ànd bu teqalikoo mën ta ñàkk sax buñ dee teqalikoo mu nekk ci yiw lay doon kenn ku nekk la ngay dem gën la nga nekkoon beneen bi abi saïd di ab surga wala jaam ci abi usayd nee na damaa takkoon soxna te fekk boobu sax man ab jaam laa woon nee na ma woo ay saxaaba ñu ñëw ci ibn Mas'ud ca la bokk ak abu zar ak xuzayfa nee na julli jot ñu daal di may wax jiiteelu nee na fekk boobu ab jaam laa ñu jàngal ma li ma war a def ba ma pare ñu digal ma ni ma bu sawa soxna yegsee da ngay julli ñaari rakka soo paree nga ñaan yàlla mu defal leen yiw nga muslu ci seytaane mu musal leen kon jaadu na nga waajal sa bopp ci bunt boobu ginnaaw boo xam ne dalal nga soxna si ndax soxna si du ñu tëll rek nga ne ko kaay julli ñaar rakk déedéet xanaa gan kay balaa nga fay nekk di jàmm sant xanaa dañ ko may ndox mu naan wala leen te loolu mooy sunnay gan nag dinaa koy faral di wax ñun mënuñoo ganale te ba demee surtout Daariyaat fa sunu borom di nekk ni Ibrahima ak gan ak malaakaam ya bañ yegsee rek fama labita ci surtout Huud fama labita an jaa bi ajlin xaniin jàmm sant ki balaa yegg rek dem na daal di wàjji aw yëpp fële ci surtout Daariyaat mu ni faraaga ila ahli fa jaa bi ajlin xaniin kon bokk na ci sunnay gan may ko mu naan may ko mu lekk may ko mu sangu doo ko guddalub jàmm sant na ndax amaana gan gi mën naa xiis mën na nangam soxna si bu ñëwee la ngay jëkk a def mooy ñëpp yëkkati sa loxo teg ci moom loolu ñaan bu gàtt la soo paree nag commencé dalal ko bismillah toog leen jàmm sant wax lu ñor ak lu ñorut noonu daal waxal rek soo paree ca loola nag bu fekkee ku mën a julli la nit ñi may leen ngeen julli ñaari raaka lépp nag sorko sorko jooju jullee ko fa du yomb moo tax bàyyi ba ci xaaji guddi gi ba gan ñi wàññeeku doo koy julli moo gën ndax boo seetloo seet xumbeen yaag coow yaag wax yaag xaxar yaag ci ñi koy def nga yooyu moom daanaka mënu faa julli julli bu baax kon loola bokk na ci sunna nit ki julli ñaari rakka ànd ak soxna su ko defee nag daal di koy dalal ku jigéen ci daa waaj toilette doog a ñëw yow it nag dañoo bëgg nga waaj toilette nag waaye góor ñi nag ñoom it léeg-léeg man xaw ma dëddu àddina lañ ciy jublu xaw ma dëddu dëddu lu la xaw ma ñàkk a xam ah damaa xam ne yendoog sab xabtaan yaa ngi ñàkk tooy xib ah xet bi rek ci yow daanaka kenn xamut lan la soxna si ñëw sangu si waatoo soppeeku woo loolu moom ci ndoxe dëgg la bokk xet gu naqari ñëpp ko bokk bañ xet gu neex ñëpp ko bokk bañ jàpp naa ni ni muy toiletoo xaalis bañ ko jox mu pare ci yére bu mu jënd pour yow ah yow it kasaalika nag boo ko mënee demal jëndi ab yére bu bees ah demal jéem jekk-jekkalaat boo mënee watu nga watu soo mënee dindi say naanu nga dindi ko xam ngeen ay naanu ah yéen kon dégg leen wolof bi xanaa yéen franco olof ngeen di làkk kon naanu mooy yii ay mustaas nga wàññi ko bii la olof yi tuddee ay naanu sikkim nag sikkim bi nag ma ne sikkim bi nag nga bàyyi ko amul dindi amul jéem ma ne su ko jéem jéem ko mooy wàññi ko tuuti rek déedéet sikkim moom kenn du ko laal sikkim moom kenn du ko laal ndax yonent bi da koy tere sallallahu alayhi wa sallam benn waaye nee nañ ko waaw yow lan moo tax ngay yar sa sikkim muy damay bañ a nuroog sama jabar aka wax dëgg xam nga sikkim boo ko bindee yaa sa jabar yéenay nuroog te jigéen amut sikkim te boo niree sikkim da ngay nuroog sa jabar kon da ngay bàyyi sikkim bu ko defee nga doon nuroog sa jabar nag kon sikkim kenn du ko laal jekk-jekkal wàññi koy naanu jempu watu kawari poqutaan ak yëpp yëpp kawar yi war a dañ mu dañ yooyu yëpp bokk na ci la sunna digle ci nit ci waajal bu ma nee socc moo gën wa illaa mu jëfandikoo seen brosse yooyu nga xam ngeen ni gémmiñ day am xet te loolu kenn bëgg am na koo xam ne moom yoonam nekk ci loolu lépp loolu day yàq yow xoolal kii ni mu toilette ak yow ni nga tilimee ah kee ngi xeeñ lu neex yow yaa ngi xeeñ lu kenn xamul déedéet kon la jaadu mooy nit ki mu jekki-jekkal Abdullah ibn Abbas da doon ñëw sol xamis bu rafet kaalaw jekki-jekkal tus nga lu foo jëm mu ne sama pegg soxna ndax walahunna mislu alladi alayhinna bil maaruf àq yi ñu am ci ñun ñu nit moom lañ am ci ñoom ñoom dañuy tuwaalate pour ñun est ce que ñun dañ tuwaalate pour ñoom loolu nag ñu bàyyi ci xel léeg-léeg sama classe bi dañuy génn ak suma yére bu weex ak tubéy ji bulo dara néew ci de waaye nag gis nga soxna yi ni ñu bañee loolu lan moo tax ngeen bañ ko da ngeen di bañ ñu ne xanaa kii bàyyiwul jigéen ci kii bàyyiwul jigéen ci kër ga waa kii xanaa bi ñuy génn jigéen ñi gisuñu ko jigéen ñi loolu la ñuy daw baat yooyu la ñuy faral di daw ama jigéen ñoom dañoo mën a saboot bu la sey ne nga génn ak yër affaire yu niróo rek da ngay dégg ñu naan xanaa kii bi ñuy génn jigéen gisu ko gis nga góor ñi dañuy am problème ci bunt boobu léeg-léeg da ngay yàkkam ci génn sum waaye sol loo xam ne dara néew ci waaye faw ñu summi loola waaye nag pour man summil rek garaaw am benn problème ak xam la kat nag ndax comme jàpp na ne ab daram dafay yàqoo bu génnee ah dëgg yàlla loolu dara néew ci de solal lii lii moo gën a baax lii daa proisé kenn passé gu ko boo ko sol gis nga nag am na góor ñoo xam ne wax dëgg yàlla dañoo soof nag foofu moom xam naa ma wax ko te gën a dund nag waaye am na góor ñoo xam ne dañoo soof lool ndax damaa jàpp ne da ngaa war a génn yére bi kenn passé wu ko kii mën na koo passé wala jël nga bañ passé nga seet bu froissé boo xamante ni mel ni ku bàyyiwul jigéen ci kër gi am na loo xamante ni da ngay yàq sa deru soxna maasum waay yaa ngi génn sol lu ci lu dëgg la sax léeg-léeg mën ta ñàkk léeg-léeg yàkkamte mën na ko waral wala ñàkk gis lu set wala nangam waaye nag koo xamante ni foo ko gis loolu habitude la ci moom fekk lu tilima tilima tilima tilima soo ko di génn ci nit ñi loolu kenn jàngal la du yonent bi du saxaaba ya déedéet waxuñu la fuñ la fekk nag ngay peñe wa ko toilette toog yu kenn xamul mel ni jigéen ci nit waaye waxuñu la fuñ la fekk nag su waaye nga mel ni ci de sànni déedéet loolu moom sunna la koy tere kon jëfandikoo boros wala socc ay sa doon nañ ko laaj ni ko waaw yonent moom lu mu gënoon a fonk buy dugg si muy li mu gën a fonk mooy socc su ko defee xet yi nga xam ne moo nekk ci gémmiñ bi yëpp day daal di dañ jàmm daal di ñu ñooy jigéen nag day faral di am problème góor it di am problème ci moment bii jigéen su fekkee gone la mësta xam góor ay sëyeeg yooyu tey mi ngi ciy doog a tàbbi gis nga affaire bi day diis ci moom mel ni ku yenu ay potlam ku góor ki it kadaalika affaire bi day rëy ci moom da ngay yaakaar ni fi ne sa mooy àddina buy waaj a tukki la tey ci ngoon fekk seetal du dara gis nga góor yi ci tàbbi saalib ak a bari jigéen ñi ci tàbbi saalib ak a bari waaye saalib booga pour dama jàpp ni ñàkk xam moo koy waral parce que formation bi war a am ci ku góor ke ku jigéen ki ñu xam ne tey liir dara te kenn ku ci nekk am nga psychologiquement lu nekk ci sa xel loola mooy yëngatu nag moo lay tiital parce que yëpp yi niñ koy réyee léegi niñ koy garaawalee ngandal ko nga yaakaar ne fi mu nekk ni tey la àddina bi tukki ci guddi gi fekk déedéet mbir mi demee loolaa tax benn borom xam-xam di wax ni bokk na ci li lay dimbali te loolu sax ndimbal la tey waaye danaan nekk ndimbal démb mooy bari looyu def istigfaar di jéggalu suñu borom ndax suñu borom mi ngi wax ci suratu Hud ay juróom fukk ak ñaar jéggalu leen seen boroom te tuub jëm ci moom dina yabal asamaan mu taw am ndox mu yëkkati waaye mu dolli leen force ak kattan ak dëgëraay moo xam ku góor ci la moo xam ku jigéen ci la boroom xam-xam yi dañuy wax ne gis nga jéggalu yàlla ni mu doon dimbalee avancé yi ci moment yi daf lay gën a dolli dëgëraay ak dal bu dee ku góor ci la koy gën a may doole ak kattan kon jaadu na su jigéen ci bàyyi xel lu mel noonu su ko defee nag ah léegi nag guddi googu mooy guddi gu jëkk la gën nag la gën dëgg la soxna buñ ko mayee ku góor dagan na ca moom mu ànd ak moom sëy waaye la gën te gënaat te gënaat mooy nit ki bu fekkee dafay doog a sëy si ci yow te nekk gone nga bañ a gaaw a sëy ak moom moo gën loolu la xam-xam saxal te defe naa xel sax loolu lay gën a nangu nag ndax am na xeeti ragal ak ñàkk a miis goo xam ni bu dañee bu nekkee ci ndaw si am na xeeti kersa goo xam ni dañagut ci moom rek nga bëgg a ubbi beneen bunt bu gën a xawweeku ci kersa ndaw si mën naa am jafe-jafe ñaareel bi mooy nit ñi dañoo sopp nit ñi dañoo sopp soppe gi mooy gis nga fi mu ne képp ku sëy rek ñu ngay déglu lu xew lu mu séq ak borom këram ndax jànq la ndax du jànq ila axiri nañ daal mbirum sëy moom mooy ànd ak sa borom kër am ak moom rapport kese dañu jàpp loolu mooy sëy te fekk déedéet loolu lenn la ko rek loolu du dara daanaka lenn la kon ndénkaan boobu ku góor moo ko moom dëgg la man ngaa fa wax soxna si man ngaa bànneexu ci moom man ngaa waxtaan ak moom yooyu yëpp waaye nag bu dee sëy dagan na de laa wax dagan na waaye la gën laa wax xam ngeen olof dañuy wax ni lu baax ak lu gën a baax day am lu bon ak lu gën a bon di am kon la gën mooy bis bu njëkk baak ba ca bisam ñaareel ba ca bisam ñetteel ba sax la gën mooy nit ki bañ a séq ak soxnaam lu gën ci wàllu sëy donte nag jafe na nag waaw jafe na lool lool nag lool parce que li tax mu jafe mooy mën naa yomb ci ko jigéen ci léeg-léeg waaye day jafe ci ko góor bi ndax maîtrise bi ci jigéen bi am parce que daa muuroo mbalaanam kerta amaan na góor mën na ko caa bañ a am ndax góor dafa ëppal dafa yàqam non du góor yëpp nag waaye dafa am ñoo xam dañoo ëppal kon bunt boobu it moo ta bàyyi xel la beneen bi ci topp mooy séq ay waxtaan comme ni ma ko waxee woon sànq mu bañ a yem ci nganale ga rek ba gan ñi dem déedéet ngeen séq ay waxtaan tey ba suba ba ginnaaw suba foofu nag moom daanaka moom nee naa la waxtaan moom lépp lu dul bàkkaar daal waxal lu dul bàkkaar rek waxal defe naa loolu leer nag lépp lu dul bàkkaar rek waxal parce que jigéen ji wax sa bi nekk ci moom muy tiitaange jeeg njàqare jeeg ci xaw ma koog ci miinaguma koog te it xam nga jigéen joo xam ne ku sàmm la matum tummeeku ci kanamu góor loolu lu rëy lay doon ci moom même bu dee wóor na ko ni dem nañ jàkkaje ci misaal may nañ ko kii loolu day rëy ba tey ci moom lii may wax ni defe naa jigéen ñëpp dina xam waaw loolu day rëy te effectivement nag noonu la war a demee nag ndax jigéen dafa war a am kersa ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon am na foofu waxtaan moo koy jariñ waxtaan ak moom dalal ko wane sa mbëggeel ci moom wane sa cofeel ci moom ah man sax léeg-léeg mu doon ñëw seen kër muy ñibbi dama lay piin lu ne moom daal loo xam rek loo xam ne moom bu soobee yàlla bàkkaar amu sa rek waxal ah parce que jigéen jiit wax yooyu day tax mu daal di xam naa boo demee yow mii sax yaa ngi ma doon piis yooyu gis nga yooyu yëpp dara ñëw ci parce que bàkkaar amul bàkkaar amul bàkkaar mën naa reetaan loo ndaw si mën naa dugg ci xolam mën na koo muuñ loo mën naa waral moom mu wax ci li kadalik moom daal loo xam ni boo ko waxee daal bàkkaar bi ci am rek waxal te it bariwut li bàkkaar bi nga am foofu moom it kadalika mu wax kon buntu boobu ci la céetal nekk su ko defee nag amaana nit ki buñ ko indilee céetam waxtu guddi bu xëyee suba kadalika mu nuyu céetam ak céetam nuyu ko yooyu dara néew ci may ko ndox supp dara néew ci dara néew ci am na ñu koy bañ waaye dara néew ci sukk du dara waaw man ci li ma xam boog sukk du dara parce que aada la woon li ixtiraam kese di woon màggal jugewul ci jaamu yàlla jugewul ci bokkaale jugewul ci defal ko koo xamante ni ab cër la yàlla bu ñu jox keneen déedéet sukk nekkul ñu sax xëy na ni ñu ko ni ko nit ñi doon defee da ngay gis bokk na ci niñ daan nattee jigéen bu ñëwee may la ndox mu daal di sukk wan la gannaaw du la xool sëgg ba nga pare mu yóotu ndax jàng dañu ëppal dañu ëppal loolu daanañ ko tàmm ci jigéen waaye da nga daan labat ci nga ñëw su mbooy ñu daje daje jigéen ji ëppal ëppal joo xam ni daanaka bu yegg ci yow balaa am jàmm sax daa tuur ndox mi sa kaw yooyu bi jigéen moom dëgg yàlla moom baax ëppal baaxul ci jigéen baaxul ci góor waaye ci jigéen la gën a bon kon yooyu ay aada la woon rek foon sa borom kër loolu dara néew ci yu baax bi ma wax sax dara néew ci damay wax loolaa war a am sax nag fas kon ci gàttal daal yii su ko defee lépp ci nit ñi bu ñu xëyee ceetal am yeen du am seet bi mën naa génn jox gan ñi sax seen naan séddale boisson seet bi ci boppam muy servi boisson yi loolu dara néew ci ci jamonoy saxaaba ya daana am ci jamonoy saxaaba ya daana am ci ay asar yu wér ibn abi shaykh dañ koy nettali ci musannaf saxaaba boo xam ne dafa doon seetal naan yaag ñoom seen dañ koy séddale seet bi ñoom moo ko doon séddale waaye nag su fekkee fitna amul ndax koo xam ne ma nga sol loo xam day fitna laate loxo ya lam ci rëdd ma ngay fitna laate yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel bi may jeexale nag mooy yi xew ci jamono ngeen bàyyi ci xel xaw ma su dan lañ koy defee xaw ma luñ koy defee jàpp seen yaram yi di bind ak yooyu waxuma baaxul de waxuma loolu waaye li ma bëgg a wax foofu mooy léeg-léeg jigéen ñi dañuy futteeku ci seen kanamu moroom ba futteeku wane loo xam ne sa moroomu jigéen sax dañ koo gis yow xam naa li ma yoo xam ngeen waaw loolu daganut de déedéet loolu daganut bu dee bi loolu la moom loolu moom daganut bëgg am ay taar taar ak maa def lii bind ci sa yaram wi lii ba tax ngay mën a ubbi barab boo xam ni sa borom kër rek ko war a gis ci yow sa waajur sax waru ko war a gis ci yow loola moom yëpp li ñu dagal yii daal jàpp naa ni bees ko bàyyee xel kon ndaw si sëy si nag léegi nag dugg nga ni rubba nag léegi liggéey la xaar la liggéey moo lay xaar léegi nag su nekk nii nag am nga am nga am nga fas nag léegi nag foofu lañ lay waxee nag waaw kumba ñu xam lan nga jëlee seen kër tek mën a sëy ndénkaan ya ma doon jox nooy nangu ah te baat yi bu ngeen seetloo dama ciy insister toujours rek li tax ma ciy insister mooy xam naa damaa xam jigéen ñi góorgóorlu leen ci bunt boobu nooyu leen de jigéen moom saabu nooyut bay saf góor jabar juy saf góor moom xaw ma lu ko góor ñu lay dëgër ay wax dëgër ay kàddu naqari ay tont te gàttale ko ah deesu la nopp de loolu moom na leer nañ moom loolu moom góor gu la ko wax da lay nax gàtt ay ton naqari ay ton rëy aw làmmiñ fu waay di wax fooy waxee ñëpp di dégg ah cër bi nga war a jox sa borom kër ci nangoog nooy tàll ñeret ci misaal moo taxoon ma doon joxewaat ndénkaan yi na ngeen ko dégluwaat bu baax yooye jàpp naa ni su amul ci jigéen da ngay saf góor te xam ngeen ne jabar bii sax góor góor waru koo mën a doyoo dara nag wax dëgg yàlla léegi nag liggéey bi daal di tàmbali su ko defee sëy nag ubbeeku na léegi nag kenn ku ci nekk nag war a xam nag tërul balaa ñu yegg ci ku nekk ci rôlam li nga xam ni moom mooy ànd sëy arab di ko wax aljimaa jàng tubaab di ko wax rapport sexuel l'islam am na lu mu sa jàngale jàpp naa ne du ma du ñu ñëw ba yegg ci ni nañ ko tës ndax daa kersaw déedéet ndax boo ko defut la gën a bon mooy am la gën a bon mooy nit ñi dañ koy dem wëri ko ci roman yi te foofaa gën a bon comme l'islam nag amut kersa ci jàngale dara ndax inna allaha laa yastahyi min alxaq shay'an buñ ca yeggee la ca mën a leer leer lu ca mënta leer it ñu xam ne moo mënta leer wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ñaanal yàlla subhanahu wa taala ustaz yàlla subhanahu wa taala koy defar ci ñi nga am xasanaata dañu dem directement ci question am na question xam ne je pense que tontu na ko ci ci bàtt bi comme tatouage bi ñu doon wax sax ak yooyu ci dafay laaj mu ne su fekkee comme da nga leetu daan ñoo xam bu ñu leetu seen lekk bi day donte dañu si jàpp mais da ngay gis ni mu bon benn ci bu lay def nii quoi waaw loolu déedéet loolu moom dun bu ma nee ñàkk mooy li gën ku ma ne al allaama ibni usaymin ak ay borom yu xam-xam yu mag gën leen laajee loolu dafay dañ koo tere maanaam nit ki létti létti yoo xamante ni ma nga takk te digg bopp ba mu ni juggu juggaaral nga xam ni boo xoolee moom ngay ka njëkk a séen loola ci fësal saar la bokk wax nañ ci ay wax yu baree bari waaye daal gënut létt nag kenn terewu la rawatina bu dee sa kawar ak bopp la sa lu baaxee nag waaye nag def ko façon boo xamante ni yaa nga muuroo kol gu yaraax a yaraax a yaraax ba góor ñaa ngay séen sa létt yi fa mu tëdd wala nga def ko mu jugg juggaaral ba waaye toll di la séen loola moom wax dëgg yàlla gënut ci koo xam ni ñu ngi góorgóorlu ci sunna parce que loolu dafay fësal saar te borom xam-xam yi dañ koo tere wallah ki mu ne ndax mën nañ fecc su fekkee ne musique bi musique arabe la mal farq bayna musique arabe ak musique Sénégal benn la musique musique la musique moom amu ci benn bu arabe baag bu anglais baag bu français baag yëpp ci bokk yem musique moom daganu la déglu daganu la fecc waxuma daga fecc de déglu laa wax déglu musique arabe sax daganu musique musique la musique moom bu arabe baag bu umu kalsoom baag bu kële baag bu kële ba ca des yëpp ci bokk yam ak yu Sénégal ya musique moom daganu la déglu dafa xaram fecc moom taxut di wax di yëfi jullit sax nag bala ngay xam ne fecc moo soob nga taxaw fii di seen kuy fecc te déggoo li muy fecc li muy li muy way am na nga yaakaar ni kii jinne da koo sab lu soob la waxuma laa nag islam da koo xaraamal fecc moom amul ci islam moom wallahu alam ok mu ne est ce que maanaam soxna si dañ ko war a gunge luy tolloo quinze jours wala une semaine comme ni ko yenn ethnie di defee soniñ ko yi quoi mu ne wala sa parents yi daal lay imposer benn façon lépp daal lay posé benn façon lépp quoi ala kulli xaal gunge pour quinze jours pour nangam déedéet nganale moom ñetti fan la yem céet gi loolu xëy na ma dab dabaatal ko bu dee gone la nga xam ne xamagul dara miinagul yaa ko war a miinal am nga moom ak juróom-ñaari fan loolu mooy bu dee da ngaa yore yeneen soxna waaye xam nga boo yorul beneen soxna moom daanaka bu dee juróom-ñaari fan ak fukki fan ak juróom ak yow dong yaa fi nekk bu fekkee da ngaa fekk ay nit te nga nekk gone am nga juróom-ñaari fan su fekkee mas ngaa sëy nag nga xam ne yow moom ku la wan yoon wa nga dem ku la ko wanum nga dem bu nga joxee ñetti fan day na ko amma jëmmi di la imposer ay façon lépp dëgg la nee naa am na yoo xam ni jërut coow façon létt yi dañu moom la ñuy létt te fekk létt yi dara ñëw ci ay létt donc loolu jërut coow jërut coowoo am na yooyu tamit nañ bàyyi xel lépp loo xamante ni mbirum diine ajuwu ca wala boog bokkaale yàlla wala lu ëpp wala def ci mees wala lu xaraam déedéet am naa jëmi ay létt la ci misaal ñu ne létt yi dañ koy tëral mu nekk ñetti létt benn fii benn fii benn fii ay létt te fekk bu dee loolu donc la jërut coow boo ko mënee bañ baax na def la nga bëgg soo ko mënul su fekkee nan naa jur coow defal loola waaye nag bu dee létt yi daa am lu carax nag waaw la carax mooy tax nga bañ ko
wallahu alam waaw ci tam même question la mais moom yëre lay wax quoi comme ñu imposé la yëre yu weex comme yenn fan yi ñu mel noonu waaw bu dee yëre yu weex de boo ko mënee am ñawlu gi sax yëre yu weex la ko gën ndax weex moom ni mu gënee ci góor noonu la gënee ci jigéen amaa yéefari ni ñuy faral def seen rob yooyu nga xam ne kenn xamut lu muy nurool loolu moom dagal te nuru nuru lu ak jaamu yàlla da caa aju gis nga seen xeeti rob rob yu gudd yooyu ci wàcc ba ci suuf di nuroog lu kenn xamul di fayi fayi plus seen jaaro yooyu séance yi ñuy joxe dafa am lu ci aju loo xam ne cosaan la mbirum diine la loolu ngeen xam mbirum diine la te diine jooju du diine islam kon daganut amaa jëm bu ñu la ñawal ñaw bu weex yow sax bu la ko kenn waxul yaa boo mënoon taamu ñaw bu weex moo gën a xam ngeen weex moom macha allah bu dee rafet rafet na ndax la tax yoon bi taamu ko bam naan sol leen ci seen yére yu lu weex booba jaglawul woon góor kese góor ak jigéen ñi fa ko bokk bu amee leneen tamit nag moo gën jàpp naa ne góor gi ñi ban façon yore nga bëgg mu ne couleur tel nga dem jawi ko su jigéen ki laaj la lan nga fa te loolu tamit am na ci solo tamit nag kenn ku ci nekk ngay def la sa morom bëgg waaye man lii laay solde kenn mënu ci dara loolu moom daanaka du neexalub sëy moom wallahu waaw kii mu ne comme aussi tamit crayon yi jigéen ñi di def mën nga ko def génn ak tatouage yi xam naa crayon yi ñuy def ci xet la
crayon yi ñuy def ci xet day li ma ci gëstu ci wàllu santé moom baaxul ci bët nga matière bi ci suñu kër yooyu dëgg la dégg naa nag am na ci gëstu yi am na ku ma ci wax ne am na yu baax donte yooyu moom amut wala bariwut wala dafa cher waaye seen kër yii ma gis nii ba muy pastel la tudd ko ma lan yooyu matière biñ ko defaree baaxul ci bët loolu nañ ci bàyyi xel beneen bi ci des yii ngeen di diw ci seen tuñ yi matière bi ñu ko defaree baaxul ci dëgg la bu bu ma wax baaxul rek mooy yi ñu jëfandikoo peut-être am na yeneen yu ñu defar yoo xam ne yu baax la yooyu tamit ñu bàyyi ci xel kon bala ñëw ci cadre dagan ak ñàkk dagan dañuy wax ci cadre mën naa lor nit ci ba pare kon su boobaa tusungalu ah dara gënu koo am solo ndax tusungal moom wax dëgg yàlla rafet na lool te baax na wa illaa nit ki am loo xamante ni baax na di ko lor te it bu ko defee nag bu mu ko génnee ca góori jàmbur ya nag ndax saaru ba jekk paskelu ba jekk fuddadu ba jekk génne de saagar saagari ci góori jàmbur yi loolu ndax xaram wallahu alam donc question bi ci day laaj mu ne est-ce que nit ki mën na di xóot ci ci publiquement nii wala muy lekk publiquement nii quoi di xóot ba pare di xóot di way man loolu moom ma ci jaarum ci yow di xóot di wayaale quoi di xóot di wayaale ah donc nga xam naa sawar na lool ko xóot di way sawar na lool waaw way da ala kulli xaal duñ ñu daa daa bon kenn du wax daa bon ni tamit bu ñu di fàtte ni lislaam am na yu maye bu ngeen fàtte ci ceeb ga maye woon nañu way te it way ci jëmba bu dee ci way dong la yam dafa am ay tënk mën naa dagan tënk ba mooy ndaw si yëkkatiwul baatam ba fu waay toll di ko dégg ñaareel mooy la muy way tamit lu dagan la lu baax la ñetteel ba it ak ëppal amu ca loola moom dara nañ ci waaw bu fekkee dafay fóot ci public mën naa nekk donte làqatoo gën na jigéen lépp lu muy def mu nëbboo gën waaye am na yooyu ci ay yére moom kenn du ko fóot public li xew tey ndakaaru nag mooy lu bona bona bona bona bon ah moo taxit fi ne kenn amatul iman fi ne loo yalwaan ci iman ci guddi gi boo xëyee mu këpp ba nit ñi di di ñite ba nit ñi di ñite dañ daan am lu ñu tuddee wanag wanag mooy buñ tabaxee kër gi ba pare te léegi alhamdulilah ñi nga xam dañuy yëngu ci wàllu plan te góorgóorlu ci sunna même suñu kër yi ndaw yi mën nañ ñoo defar loolu defar te gannaaw ab fóotukaay wala leneen loo xam nit ki mën na faa nekk di fóot am fete ngay dégg rek waaye doo xam fu mu nekk ñaareel bi mooy dafa am xeeti yére yoo xam ne kenn waru koo weer ci ëpp am na xeeti tubay yoo xam ne kenn waru koo weer ci ëpp parce que am na lool sa jom ak sa kersa rawatina ñi nga xam ne fañ nekk dëkkuñu fa dañoo luye rawatina ñi nga xam dañoo luye bokk ak ay nit am na loo xam ne sa nite ak sa mbañum rus ak sa respecté gi nga respecté sa bopp war ko tax sax am na loo xam ne waroon na nga góor di ko gis ci yow déedéet tubay ji tubay diwa sër bi sërëb diwa am na yoo dëgg la ab yëre taxul may wax waaye am na yëre yoo xamante ni yëre biir nekk la yooye moom rafetut jaaduwut baaxut ñëpp di ko fóot fekk ñëpp ña ngay gis wala mu pare di ko wiir weer ci ligne goo xam ni locataire yaa nga fa wala bu dee seen kër nga nekk ñëpp a ngay gis wala sa kër famille ngay sëy ku war a gis ma ngay gis loolu est ce que xam ngeen ni am na loo xam ni bu ko góor xësee gis yow du ko la respecté bi xaw nga loolu ndax xam ngeen comme déet su fekkee ne bu ngeen bokkoon dëkk ensemble am na xeeti tubay wala xeeti yére wala xeeti séri yoo xam ni bu ko góor xësee gis ci yow xam ni lii yaa ko moom respect bi la joxoon day commencé wàññeeku maanaam affaire daal noonu la ko yàlla liggéeyee xam ma lu ko waral kon nag bu doon luñ mën a weer ci biir nekk moo gën bu dee lu mënta nekk ñu weer ko waxtu guddi su dee lu mënta nekk ñu weer ko foo xam ne xëy na bët mën na faa bañ a weer wallahu taala aalam ki mu ne da nga wax comme fecc dafa xaraam am naa dafa jàpp ne walima fecc rek la mu ne kon lan mooy walima bi quoi moom loolu la bëgg a xam waaw man gis naa ne daanaka ñii walima ñoom dañuy fecc ñii li ñuy def dafa xaram moom xawma dañuy safa fecc ñëw foofu di fecc xawma lu xew waaye fecc moom ci lislaam amul fu mu dagan ni way lañ wax way ak tëgg way ak tëgg nag jotewut ak fecc dara wax dëgg yàlla waaye ay way yu am solo ah way yu am njariñ waxuma it seen way yu ñàkk fayda yooyu comme ni ma leen ko waxee ay bul door bul saaga américain lañ la indil jàpp naa ne loolu ñàkk fayda tax nit di ko parce que damaa jàpp ne kii kii kii bu dee américain nekk ab jullit kii moo gënub américain kon da ngay wax lu am fulla fii am nañ fa ay xeeti way yu baax way yoo xam ni wax dëgg yàlla bu est que wayee mu am njariñ waaw kon jàpp naa ne yooyu moo ëpp solo foogu ñu la nag wayal ci olof wayal ci français yaa xam wax dina am njariñ rek l'essentiel waaye fecc moom amut ci lislaam te it mën naa nekk jigéen ña mën nañ koo def ñun gën a wàññi seeni baat mu gën a baax ah góor gu ko mën a toog nag bu mënta toog déglu ko yaa fa war a jóge waaw loolu ndax may nañ ko jigéen ñi
wallahu taala am lu ci yokk mooy ndax date yi frères yi ñu ngi koy jël bokk yi góor yi je pense que am na ah mais bokk ñu ok beneen question moom mooy mu ne su fekkee nit dafa signé ak soxnaam ne ko du takk ñaareel mu signé monogamie benn jabaat mu ne est-ce que bu takkee ñaareel sëy boobu dina wér
moo na dëgëm baaxut moom moo na moom përee ko gën waaw ci lislaam moom moo ne moom përee ko gën moom ndax moo gën a takkan maa ngi profité dénkaale suma mbokk soxna yi gis nga pour man monogamie pour man daanaka ragal la rek la- ragal la rek ab sëmbax loo daal man pour man dara gënu ko ku ñemee wax dëgg yàlla kay sama marchandise laay indi ci marché bi waaye bu kenn jaay man dong may jaay ah da ngaa wóolu wuñ sa marché bi yàlla li mu yoonal dëgg la nag loolu waxuma ko pour na polygamie am wala takk leen wala nañ tasaar déedéet waxuma loolu waxoon naa ko mbokk yi ca waxtaan wi ñu doon def ci ak tawfiqaatu rabbaaniya fi taadudi zawjaat bi ñu koy def ma ñëw fekk jàkk ji fees jell jell jell jell jell xam nga góor ñoom loolu rek lañ bëgg bi may tàmbali nee naa leen bu yow ngeen xam ne ñëw ma fii pour wax leen dëgg takk ay jabar loolu tax ma fii waaw loolu nañ ci bàyyi xel kon problème mooy ku mënul bàyyil ku mënul bàyyil ba keroog ngay man amma góor gi nga xam ni moom dafa siñanteeg soxnaam monogamie te loolu wóorut nag wóorut de adduna day suppeeku adduna day dox gis nga fi mu ne xala fi dañuy wax ne même boo nar ko takkaat beneen sax dee ko café parce que damaa jàpp ni jigéen ji nga def ci confiance am ni ko doo takkaat beneen soxna ba mu gëm loolu wax dëgg yàlla boo takkaatee beneen tooñ nga ko nag moom waaye nag ndax dina dagan waaw dina dagan parce que charte boobu du charte bu l'islam di reconnaître charte boobu du charte bu l'islam di reconnaître ndax lu yàlla daganal la ba noppi dëgg la nag boo ko defee tooñ nga boo ko defee tooñ nga parce que amaan na boo ko waxoon ndaw si moom yëg na ni mënta wujje mënta wujje nag dayam yu koy waral lépp ci yéen li koy waral mooy ragal rek ragal ak xëy na peut-être li ñuy gis ci coow yi am ci diggante wujj yeeg man daal ragal daal laa ko mën a tuddee waaye jàpp naa ni góor jigéen ji nga xam ni moom mën na confiance am te sëykat dëgg la ci dar yu mel nii wala yu ko gën a leer ak i fàttali ba pare am ay conseil te loolu bokk na ci li may dénkaan lu am solo la am conseil ak a baax man remarque bi ma def mooy ñu bari ci mbokk yi dañu amul ay conseil gis nga léeg-léeg jigéen def njaaxum bu rëy rëy rëy rëy da ngay waxtaan ak moom da nga yëg ni kii amul conseil ñaari cas gaar dañu ci benn bi problème bi dañoo régler régler ba daanaka la ma jàngoon lépp ma xaw koo sari te affaire bi mënta régler su ma xel dem ci benn question ma ne xaar ma laaj ko ndaw si ma ne ko est-ce que am nga koy diisoon mu ne ma déedéet ma ne ko exactement masal problème baa boobu parce que man xool naa yem na tan wa yasara gisuma problème bu réyee nii naka la nit mën a am conseil par bi ci tab kon nekk dafa am ay conseil beneen bi ci des koo xamante nii moom jàpp na ne fi ne moom moom yëf yi ba def ay njaaxum yu bare bare bare waaye bi ñu waxtaaneek moom dafa yëg dafa def séeréer kon ñàkk conseil baaxul su ko defee su fekkee góor gi dafa siñanteeg loolu ku jigéen ki bu demee ba takkaat beneen nag tooñ ba ndaw tooñ waaye nag ndax sëy ba dana wér waaw dana wér bañ koo def nag mooy li gën a wóor parce que xamuñu àdduna fan lañu mujj léeg-léeg nga dégg góor ñi sa waaye bu ñuy seetu ceet gi neex rek nga dégg ko naan man ci yow rek laa yem man mën a tuma dégg naa ko ma sa wax sama mbëggeel quatre-vingt-dix-neuf la te quatre-vingt-dix-neuf virgule cinq ku ne jot naa la koo jox li des matul pour ma bëggaat ci beneen jigéen xoolal ñuy waxi doyee bi nan la ko góor bi waxee te gis nga ka ko doon wax tey ñu ngi nii bëgg ci ak génnaat bu sëkk yooyu kenn du ko wax déedéet góor daal bu fekkee man nga takkal ay soxna yu bari loolaa gën te it nag wujje dëgg la am na ay danger yu ci nekk am na ay njariñ yu ci nekk waaye arrangement la ci ku góor ki arrangement la ci ku jigéen ki arrangement la ci ku góor ki arrangement la ci ku jigéen ki xam naa kenn ku ne ci yéen mi ngi wax ci xelam na arrangement la ci ku góor ki waaye nu mu nekkee ci ku jigéen ki arrangement la ci ku góor ki te ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam xam-xam dem na ba saxal ni góor bu dee wér na bu dee wér na benn soxna mënu koo tamit bu dee wér na ci wàllu wér gi yaramam bu dee wér na benn soxla mënu ko tënk benn nga ñaareel bi mooy ci wàllu ku góor gi arrangement la parce que yu bare bari yoo xam ne ci sëy benn nit mënu koo matal ci góor dina la gën a mën a fegal ci ndax jigéen ji mën naa mënee morom te te man moromam sax ko def waaye ku ñëw nag man fépp moom jafe na arrangement la ci ku jigéen ci waaw waaw gis nga fii may wax ak yéen jigéen ji nga xam ni dafa am borom kër ñoom ñaar kese bis bu ne yéenay nekk yàlla xam na ni mu am beneen soxna di ayete di ayete moo moo dàq ci yow moo dàq ci soxna li ko waral mooy doomu aadama ci mu la yàlla bindee alterné bu amul ci dundal bu yàggee day toog loolu mooy lan mooy bis bu ne yaay aye bis bu ne nga gis ko bis bu ne mu fanaan loolu ci boppam bu yàggee da ngay toog ku góor ki day toog ku jigéen ki day toog maa la ko wax waaye bokk na ci xikma yi suñu borom def ci wujjee ñaari fan yee nga xam ni wala ñetti fan yee wala sans départ ci nuñ ko yëgoo la koo koy def waa ji bu demee yaa ngi ko yàkkamte yàkkamte am nga temps pour mën a xalaat bi yoon bu ñëwee lu may sol bi yoon bu ñëwee lam laa koy toggal bi yoon bu nangami moom it balaa ñëw dalay nam lii moom ñi xam ñi xam dëgg xam nañ ni moo baax léegi nag bañ koo siñente moo gën buñ ko siñentee ku góor ki juum na waaye bu dee bëgg a takkaat benn wax dëgg yàlla tooñ na ndax amaan na su ko ko leeralee woon noona du ko def parce que jigéen bi nga xam ni dafa sartanteeg yow du ma mën a sëy am na ci droit de loolu góor ñi nañ ci bàyyi xel góor engagement booy jël na leer parce que jigéen bi moo gën a xam boppam léeg-léeg nga gis ku ko def affaire beru ak siif yooyu rek la ñuy jublu rek moom léeg-léeg nga gis ku ko def parce que santé mayu ko loolu muy sa mbox am na koo xam ne moom xamul dund yooyu am na koo xam ne xam na ngantam ba mënu ko ngeen siñante du ma sëy ba pare nga nangul ko ko ndaw si am na droit dëgër te leen dëgër te yaatu na nga ko war a def foofu dañ ko war a def ci misaal tey dana ko naa man de li ma gisee ci situation yaa ngi dëkk barab sàngam moo xam ci région yi la moo xam ci Dakar la këri fan la moo xam situation daal mënoo sëy ci foofu ngeen siñante da may wutal fu ma dëkk sart ya ngeen siñante boo ko nangoo yow ko góor ki dañ ko war a def waaye bu dee ci wut yoom déedéet wallahu taala
donc ñaari question bi mu ne ak soo ko jigéen ci mën na di laaj kilifaam chaque jour autorisation pour génn quoi même su fekkee ko war a dem mariage est-ce que saa buy génn dafa war a laaj autorisation waaw waaw looloo jaadu kay damay dem boutique ba sax daa war a am tàggoo boutique ba jigéen ñi saykat dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg buy dem boutique ba foog naan maa ngi dem boutique ba donte boutique ba jàkkaarloo kër borom kër gee dama yàgg ma ne ah waaye dem boutique ba jërëjëf tàggoo waay waaw boobu moom jeex na jërëjëf tàggoo waaye looy def te amoo ci ndigalu sa borom kër yëgal ni am nga bàkkaar génn boo génn nag te amoo ci ndigalam ba neexu yëgal ni am nga ci bàkkaar te bàkkaar ba it nag bàkkaar bu foor lay doon ndax malaaka yi dañuy merle suñu borom suñu borom merle borom kër wallaahi fii moom baatu fii sax la gën a utilisé kilifa quoi am quoi maam kilifa la wax rek waxul jëkkër waxul déedéet bu fekkente ni bàyyi laa kii demee noonu moom loolu duñ ko charte parce que jëkkër charte yëpp la tënkee bàyyi tënkeewu la noonu kilifa dëgg la loolu nag aada la te moo gën a rafet bala ngay dem fenn nga tàggoo parce que boo nekkee sa kilifa ngay génn dem te doo ko tàggu bu dee kilifa gu xam lam doon la muy gëm mooy yow respecté yow parce que ku am respect sa kilifa bala ngaa jëm dañ koy tàggu borom kër nag moom parce la
wallahu alam dernière question mu ne moom lan la war a dem su fekkee ne borom këram daf ko tere mu xijaab mu muuru quoi léegi après moom bi muy bi mu koy takk fekk moom xamul woon xamul woon ne muuru dafa war ci ci jigéen
ala kulli xaal borom kër lu mu bëgg dañ ko caa war a fekk si ba mu des bu bëgg-bëggam jiwyoog bëgg-bëgg suñu borom kaay meesu kaay xeesal kaay sol lu gàtt kaay jox sama xarit yi loxo ak kaay mu réeg yooyu moom da ngay bañ da ngay bañ ak façon boo ko mën a bañee da ngay bañ même bu ci sa sët sëy jaaree sax jar na waaw man xam naa ñu bari ñoo xam ne alhamdulilah jaral na leen seen sëy jaaree te loolu li tax ma ñu leen ko wax ngir ngeen xam ne gis nga yëf yi kum jaral moo fi nekk ak kum jarawul nga xam nga ni ki nekk sa borom kër nga bëgg ku mu bëgg la seen situation baax lool mu di la toppatoo ngeen am ay njaboot ngeen dem ba mën a teqalikoo ngir lan daa bañ nga muuru te yow da ngaa bëgg a muuru mu jaral la sa tey yàqu nga ñàkk say bien addina waaye nga ñàkk say bien addina am bien àllaaxira rek kon foofu moom jigéen bi kon moo xam imaayul meesul feesalal solal lu gàtt bul muuru kaay jox sama xarit loxo kaay fecc kaay nangam yooyu yëpp ay mbir la yoo xamante ni borom kër moom bu la ko digalee da ngay bañ parce que kenn du topp mbindeef ci narloo borom mbindeef ni suñu borom wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi
أنت حبيبتي أنت زوجتي